dalin jam jàmm ci li yéen kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien opposition bu Sénégal bu ñu mooy la du ñu am candidat unique ci élection présidentielle yu 2019 ndax fi ñu toll nii kenn ku nekk mu nga saw itam di wane boppam am Idrissa Seck njiital parti réew mi wane boppam ne day sëmp ndëndam ci élection présidentielle yu ñu dëgmal ba noppi di sàkku ñu am ab candidature plurielle maanaam kenn ku nekk demee sa wet ci wërngal bu njëkk bi jamono ji nga xam ne ci njiital grand parti Malick Gakou moom itam di sàkku ci ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy parti yi fële ci gauche bi ñu boole seen doole def seen kem kattan ba jëlee fii ñi ñoom ñooy libéraux yi ci élection présidentielle yu 2019 li ni mel benn yoon ngir topp ci gannaaw Idrissa Seck servateur ñoom jàpp nañ la dëgg-dëgg nekk opposition bu Sénégal candidat unique baaxul ci ñoom te sax bu ñu ko amalee duñ fi mën a déjite benn yoon président Macky Sall njiital ñu dëgmal tey jëlee Assane Samb ne xajjaloo bi nekkee ci opposition bu Sénégal kenn ku nekk daanaka di doxalee wetam mën na leen indil jafe-jafe dëgg-dëgg ci élection yi ñu dëgmal jamono ji nga xam ne ji moom lu jëm ci coowal mbirum projet de loi ñeel mbirum parrainage donte ne jàll nañ ko ni waa nekk ca keneen la ñoom noppi nañ lu toll ci soixante-quinze mille signature danañu ko dajale laata élection présidentielle yi Sarr adjoint bu parti démocrate sénégalais ci li cabinet parrainage bi président Macky du lenn lu may fexe rek ba yenn du ñu mën a sëmp seen dënd ci élection yu 2019 Ousmane Sonko ci ni cabinet projet de loi bi niñ ko jàllale ci assemblée nationale war tax dëgg-dëgg nag opposition bu Sénégal gi yëpp teg seeni observateur ne jamono joojule moom Malick Gakou ak Idrissa Seck daanaka kenn ku ne ma ngay gën a wane boppam ngir askan wi gën ko bay xel la ñu bokk ñoom ñaar dëgg-dëgg mooy benn bëgg-bëgg bi mooy ne opposition bi la ñu fare ñoom ñëpp te beneen bëgg-bëgg boo xam ne bi ñoom ñëpp ñoo ko bokk mooy naka la ñu mën a def ba jëlee fi président Macky Sall ak nguuram ci bopp réew mi waaye li leen xaajale dëgg-dëgg jamono jile ci diggante Idrissa Seck ak Malick Gakou yéen kay bi ne mooy kenn ku nekk dafa bëgg a doon njiitu réew bu Sénégal jamono joojule Vox Populi maire bu Ndakaaru Khalifa Sall moom itam ma ngay ŋàññ ni opposition bi yëpp di ŋàññe projet de loi bi ñu jàllale ci assemblée nationale ca biir kaso mu nekk Rewmi Quotidien ne Khalifa Sall daal dafay bind def ab déclaration boo xam ne bi dafa ñaawlu dëgg-dëgg projet de loi bi ak ni ñu ko jàlle kër mitit bi nga xam ne bi am na ko ci gannaaw ba mu sàkkoo ci opposition bu Sénégal gi yëpp ñu booloo ngir jàmmaarloog nguur ak président Macky ki génn ci parti Macky Sall di APR mooy Moustapha tax mu génn ci loxoom dëgg-dëgg ci coobareem la coow li am ci réew bu Sénégal ak jafe-jafe yi fi amoon fukki fan juróom ñeent ci weeru avril 2018 Maurice Soudiedt Dione ci li bi di source année nekk na mbir moo xam ne mu doy war la te bu Sénégal la bu Ndar ci ni bi ni xew-xew yi amoon ci 19 avril 2018 daanaka mën ci réew mi 1988 1993 1994 ba barki démb Njaay de 2011 jamono ji nga xam ne ji moom ni ki démb ña nga doon atte imam Alioune Badara Ndao ak ñi ñu joxoon baaraamu tuuma ci jëm ci kañ mbirum terrorisme Rewmi Quotidien ko yéen kay bi bu ñu ñi nga xam ne ñoom ñooy jihadiste ak terroriste yi dañoo bëgg amal ay base fii ci réew bu fii ci réew bu Sénégal ak tout tànk yi nga xam ne dañ leen di jël ñii ñu leen di fàtt daanaka nekk lu tiis dëgg-dëgg waajur yi las yéen fi ñu toll nii kay bu ñu xool dëgg-dëgg daanaka waajur yu bëri bëri bu ñu nelawee yendarutuñ ndax bis bu yàlla joojule moom ñi nga xam ne ñi ñoom la caabi fare a ca mag bu Cees toll daanaka ci ñeenti téeméer ñoom ñëpp ni dem ba tey dañoo sóobu caab gëréew xiifal gannaaw ba ñu méttuloo dëgg-dëgg anam ba nga xam ne bi njëngi leen koy taxawoo moo tax ña ngay sàkku dëgg-dëgg ci xam ne moom mooy chef bu cour ba ñu tekki ndombal tànkam rax ci dol te ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu yoon na mu seet si leen ngir xool dëgg-dëgg seen nekkin wàllu tàggat yaram stade yéen kay ni ni ji Ligue des champions 18 heures 45 minutes jotee ci diggante Liverpool ak AS am yéen kabi ne doomu Sénégal bi di Sadio Mané di football ci Liverpool ña ngi koy xaarandi dëgg-dëgg ci jongante bi ni mel diggante Cristiano Ronaldo ak Messi yéen kabi ne daanaka fi ñu toll nii kay Messi jiitu na ko sànni karawaas ga ndax lu jëm ci wàllu payoor dëgg-dëgg nag raw na bu yaatoo yaatoo kii di Cristiano Ronaldo ndax yéen kabi de sànni Messi ci boppam bés bu yàlla sàkk lu toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci ay millions la ñu koy fay